dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëyee mandat Mimi Touré coow laa ngi ne cobboy ci assemblée nationale ndax dina ko ñàkkam déet eh, gannaaw bu mu waxee ne eh, dootul bokkati ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar député non inscrit la fas yéene doon eh, ci pencum ndaw réew mi Walf Quotidien xëy ci jox kaddu Doudou Wade mi xam ne mi Mimi Touré munta ñàkk ndombol tànkam ci assemblée nationale fekk tekkiwul ndombol tànkam ci biir APR dossier wute na lool ak ni njiitu réew Macky Sall woon ci ci atum 2008 géddoon lépp euh, muy PDS gamu bokkoon ak euh, yeneen ak yeneen euh, ba ndombol tànk gamu amoon ci assemblée nationale mu ñàkk ko googule dossier wuute na lool ak Mimi Touré mi gul ci APR ba tax na kenn mënagu ko génne ci assemblée nationale yéen a cabinet des échos génnagul ci dossier Mimi Touré ëllëgam ci wàllu politiku Sénégal gannaaw li tàmbale xajam digganteem ak majorité présidentielle bi daanaka neexatul professeur Ibou Sané bu UCAD jàpp ne Mimi Touré mi le fakasalu ci wàllu mu noon na togg mbir yi ba mu ñor mu doog a jël euh, matuwaay Bakary Domingo Mané di taskatu xibaar analyste politique jàpp ne ci wàllu troisième mandat nim ci ngooyee moom Mimi Touré loole euh, mën naa doon dëgër laayam ci wàllu euh, politique professeur Moussa Diaw bi UGB jàpp ne nguur gi du ñu may lenn Mimi Touré muy doxal jëm ci wàllu politique Sénégal yéene kabi di le vrai journal ne njiitu réew jafe-jafe yi ko tënk ci jamono ji bokk na ci coowal Mimi Touré Touré mi tàmbale woon ginnaaw njiitu réew mi Macky Sall sore lool mouvance présidentielle bi bokk na ci euh, Yewwi Askan Wi ñu euh, jóg di dal ci njiitu mi Macky Sall ba ko ñetteel mooy euh, li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi ci wàllu dundu dundu gu cher gi loolee jur waxtaan ca pale ba direct news fa la newoon jàpp na njiitu réew Macky jël na matuwaay ngir dundu gi mun a yomb lool ci ndoddu askan wi matuwaay yañ ca jëlee ca googu lépp ndajëpp waxtaanee njëg yi sas na ci nguur gi fileek ay mu euh, gën a gaawee yéen a kabi di l'info ne Alla Dieng woon euh, moom mi bokk ca Inokwa jot naa rafetlu ndaje gi ni mel ne yegg si na ci waxtoom euh, bokk na ci lam ca jot a rafetlu moo di ne dina jur xëy ndax junni ndaw ñoo xamante ne ñooy bëgg di saytu njëg yi ci marché bi ndax jaar na ci yoonam déet Alla Dieng bu weesoo loolu bu ñu deful ndànk mun nañoo jël ay dogal ci googlem ndaje te ñu mujjee ca tiroir ya kenn du ko jëfee suivi ga du ca am yéen a las ne li am ba mooy nañu jëfee dogal yooyu lay ca na mu gën a ci euh, marché bi loole doon na euh, càkkuteefu askanu euh, Sénégal yéen a kaabi di 24 heures waxtaan ak Mamadou Lamine Diallo njiital mouvement tekki jàpp ne ndaje googu la càppale ba tekkiwul dara njiitu réew Macky Sall munta saafara jafe-jafe askan waxatuma wàññi njëgu dundu gi yéen a kaabi ne ana njiitu réew Macky Sall ci atum 2012 la mu digoon askan wi ci wàllu njëg yi ba tey amul lenn lu ca soppeeku Mamadou Lamine Diallo yemu fa joxoñ baaraam mu tuuma Amadou Ba ak euh, ki nga xamante mooy Amadou Hott ñoom ñaar ñile le ñoo sànq Sénégal ci wàllu koom bor gi Sénégal am ci wàllu koom ci jamono ji euh, ñoo ñu ko teg bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine Diallo yéen kabidi le mandat xëy teg tànkam ci Afrique bi de continent diggante mak France tàmbale ñu agas lool ay activiste jukki nañu fukki poñ yoo xamante ne daanaka ñoo gàllankoor euh, koomu continent bu Afrique yéen kabidi le mandat ne fekk li ni mel dàkkul Afrique munta suqaliku alerte Eh, ci Afrique eh, gëmu jiite Union africaine moom jiitu réew mi Macky Sall fas yéene solaat dàllam eh, wutali Mali ngir waxtaanee fa coowal ñeen fukki soldaaru réewum Côte d'Ivoire ak juróom-benn ngir ñu mun a am afia delluwaat ca Abidjan waaye ba tey njaw a ngi wéy di dese xambin alerte quotidien gis ne mission impossible maanaam mun na caa bañ a amee ndam moom jiitu réew mi Macky Sall ndax Abdoulaye Diop chef diplomatique bu Mali wax na jàpp ne CEDEAO bu fekkee ne dañoo bëgg a jaay doole ci bile Euh, duñ leen ci may leen alerte quotidienne discours premier ministre bu Mali euh, ca ONU euh, daanaka firndeen na lu bari ci bi de dossier yéen kabi di Le Soleil xëy du ñu dektal ñetteelu ndaje jëm ci commission mixte Sénégal ak Arabie Saoudite Riyad ak Riyad ak Dakar yéen kabi wàllu koom waxtaanee nañ ko fa ba réewum Arabie Saoudite fas yéene jukki lu toll ci ñeent fukki milliards ak ñaar yoo xamante def koo jagleel defarum wala boog tabaxum autoroute Dakar Tivaouane ak Saint-Louis yéen kaabi di turbine des ak ñun ci wàllu tali autoroute yaa ngi euh, daanaka euh, jur musiba ci réew mi yéen kaabi di ñu dégtal fukki doomi aadama ak juróom-benn yu faatu ci benn bëccëg diggante Bandia ak Koussanar yéen kaabi di turbine moo ñu ko yeggee yéen kaabi di les Échos xëy di ñu dégtal euh, coowal Kalifone ak Adja Thiaré Diaw mi ko tuumal ne def ko siif ci lu dul coobareem def ko sàkku ci lu dul coobareem yéen kaabi ne coow la teere ji ca gendarmerie ba tax na rapport médical dàq na wàllub teesum viol ne bokkatul ci googu lépp dossier yéen kabi di les échos xëy duñu ko leeralal Aliou Cissé ne ay nelawam jeex na ndax coupe du monde bi li ci des euh, bareetul daawutoon a nelaw te jii euh, coupe du monde gaa ngi ni ne këtt ne jon xel xalaatatul euh, mu nelaw ndax Sénégal war naa amal jéego foofee ca mondial 2022 ca Qatar yéen kabi sadde lu ñu am lu ñu gis démb daanaka ci match xarito doxoon ci diggante Iran ak Sénégal dalul xel bokk na ci am am na lu bëree bëri lu ñu mun a joyantiwaat eh, ci équipe bi laata ñuy teg seen tànk ca Qatar eh, gisal trio ñoom ñetti ñi le Nampalis ak ganna ak Crépin daanaka eh, jurul mbégte ci équipe nationale bokk na ci Ismaïla Sarr mi raté occasion yu bëree bëri jàkkaarloo ko caax yi raté yéen cabinet loole gàllankoor na équipe national demb ci seen match xarito yéen cabinet suñu lamb ne du combat xarito combat dëggantaan la goo xamante ne Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 ñoo fas yéene bëre benn 2023 euh, euh, rok Mbalax joxe na ci xalaatam ne boo ñaad mooy favori mooy ki gën a taxaw ci jamono ji ci googule komba jot naa dànkaafu Balla Gaye 2 bu mu wute bu mu woote mukk xeex bu mu xeex ak Boy Niang bu ko defee mun na cee jëlee mbetteel euh, ci googule combat li ci kanam rawi di gët daañu xool kan mooy dégg muñal ci bile combat Balla Gaye 2 Boy Niang